ci ay procureur toog di ko wax wala procureur toog ko wax police ànd ci ñu ñu mën a jàppe loolu parce que waxu kasaw kasaw amoon na hmm? négociation ak waxtaan tamit ni ko Tunkara waxee tamit amoon na waxu kasaw kasaw weesuwul nga ne terroriste am na fi hmm. force occulte force occulte hmm. ministre de l'intérieur toog ne ni am na fi nga gis ñu yore des armes de guerre ñu ñëw ne na y a plus rien bateau de Joola combien de morts ah, au moins. 3129 lañ mais ba tey am na ñoo xam ne ils n'ont pas encore fait le deuil de leur proche yi dee ci bateau xamul tax. Hmm. dañu bëggoon renflouement wu bateau bi. wala au moins luy mandargaal bateau Joola. ça fait combien d'années 2001 la woon. Hmm. ba on est en 2024. am na ñoo xam ba tey jii. Hmm. ñu ngi souffrir ci bateau parce que gis gisuñu coupable. wala on nous a désigné des coupables. def nañ fi procès Mame Madior mm-hmm. Boy Yuba Sambou mm-hmm. entre autres mm-hmm. mais ba léegi am na ñoo xam ne n'ont pas encore fait le deuil parce que dañoo bëgg au moins nañu renflouer ñu gis mandargawu lii mooy bato bi suñuy doom suñuy rakk suñuy mag ak suñuy yaay ak yooyu deewee ci biir mais massa koo xam ne bërki déy moo jaay deux mille vingt et un jàpp deux mille vingt quatre quatre vingt six morts nga ne noonu nañ fàtte lépp moi je donne pas seulement l'exemple de ñi nga xamee ne dañoo faatu ak ñi faatule mhm. mais je donne ici chaque jour exemple policier gendarme bi nga xamee ne ñàkk na loxoom ci manifestation yooyu nga ni ko non oublie tout Mohamed Ka mhm. ma ngi koy nuyu on a reçu ici des insulteurs dans l'ancien régime comme dans, dans l'actuel régime moi je préfère recevoir un un policier qui a eu une jambe brisée wala voilà, une main perdue mhm. ou un gendarme ñëw ne ko mais euh, Massa léegi maa boole ñëpp njaboote mm-hmm. Mm-hmm. mais pour loolu xam nga lan moo kon naa am qu'on enlève cette loi d'amnistie mm-hmm. qu'on fasse une enquête commission vérité bu amee mm. ngay doog a teg réconciliation vérité réco Afrique du Sud ci boppam mm. Mandela bi mu ñëwee ne baal naa ñëpp dañ ko ne teewul dañ am commission vérité et réconciliation parce que am na loo xam am na ci réew d'accord et c'est ça comme li ma waxoon rek